ret nag ñuy wër di seet di seet di seet di seet ba fi ñu mujjee ñu gis kenn genn jigéen ji nga xamante ni jigéen la nekkoon na première dame maanaam nekkoon na jabaru njiitu réew mais loolu taxul yaayu njiitu réew la fi ñu nii am na njiitu réew mi nga xam moom moom mooy waajuram bu jigéen mais loolu taxul ba tey ndax li tax mooy dëkkam dafa nekkoon ci jafe-jafe yu tar doomam nekk président de la république moom mu tudd Mama Ngina Kenyatta M A M M A M A G I N A Kenyatta comme ni ngeen ko dégg Kenyatta. wa li tax ñu jël ren jox ko ko moy 2007 d'abord abon dafa problem. ay problème yu metti yu amone fofu ci walu élection ñu ñëw tamit 2017 problème amat fa ba ñu ne nañu voter wat mbir mi nak indi xiiroo ŋaayoo bu metti ba ay ñu bari faatu ci ndaw si ni mu def euh, soxna soosu dafa bàyyi ba guddii mu woo doomam mu ne ko yow sa bàyyi euh, Jomo kenyata ak papa yi ki ngay xëccul muy rohla Odinga ay wëlëri lañu woon seet leen ndax yéen da ngeen a war a topp xeex ba yàq maanaam loolu seen waajur yi bàyyi woon ñëw ni da ngay woo uruk eh, rayla Odinga waxtaat ak moom mu jël téléphone am composé woo jabaru rayla ni ko yow jigéen nga may jigéen ñun jigéen ñi waruñoo fekke lii di yàqu kon paasal sa téléphone sa jëkkër mu wax ak ki nga xamante ni mooy euh, euh, uru kenyata loolu moo indi jàmm li tax nag mooy jàmm ji dafa amoon rek ñu toog jàmm am Kenya kenn xamuloon lu tax ñun nag bi ñu gëstoo ñu gis ni ki def loolu war nañ ko sagal mag la mi ngi juddu 24 juin 1933 euh, am na 86 ans Euh, ci walu aduna yalla dimbali nako mais jëfam yep mi ngi ci luy indi jàmm ci rewo moo sirit ni ñun comme buñuy set toujours kiñ koy parce que prix boko sosé sosee jatay tax mu am li ñaan crédibilité d'abord ñiko sos ñan la kiñ ko tuddee kan la ak kiñ koy jox kan la donc euh, là pour en français juste la crédibilité d'un prix dépend de trois choses. Là, c'est Jean-Karim Fall qui me l'avait dit. Il m'avait dit que la crédibilité d'un prix dépend de celui qui l'institue, du parrain du prix et du récipiendaire qui gagne. Donc, je pense qu'à ce niveau, Moronaba ak euh, Roy euh, qui, euh, Mamangina yëpp wane Afrique Abna Yumo, Europe parce que nous aussi loolu la ñuy dañuy seet lan moo fi am Europe kenn xalaatul benn président de la république sa yaay ñëw naan la euh, ni nga doxale kat doxal jàmm wala baalal diw wala jégalal diw donc ñun il faut ñu xam valeur yooyu ñu am te amul ci tubaab yi ñu bañ ko xeeb ñun donc je pense que looloo tax ñu ñu décider ko comme ni ko président waxee nag bi ñu génnee léegi bi ñu ko décidé ba pare ba càmbar ko dañoo dem léegi génn la ñu génn ci bureau président Macky parce que moom mooy parrain bi mënuñu woon ko wax keneen ku dul moom ñu informé ko bi ñu ci jógee ci ñu la ñu ñëw fii wax leen ko maintenant nag am na ci euh, organisation yi nga xamante ni kañ lañ koy joxe fan lañ koy joxe nan lay demee loolu processus bi euh, dañ ci gën a waxtaan ba tënk ko mais loolu moo nekkoon lu ñu leen doon doyee ci wàllu prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique